Quand on est une jeune maman, on n'est pas toujours sûr de ses gestes. Choisir les meilleurs soins pour son bébé est parfois difficile. Moi, j'ai demandé conseil à une puéricultrice. Elle m'a recommandé BabyMed. Des soins hypoallergéniques adaptés à la peau fragile et sensible de mon bébé. Une gamme complète pour que chaque toilette soit un moment de tendresse qui participe à son bien-être. BabyMed, son premier soin expert. bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu seen jataay bi di xiira wala seen leçon bi wala bokk seen classe bi moo del siwaat tey mu war nekk incha allah suñu juróom-ñetteelu jataay ni la ñu bindee juróom-ñett ci arab di ko bindee di ko liire famaniya ñu tàmbali kon ci bismillahi rahmaani rahim niñ koy tàmbalee ci dars bu nekk bu leen ko di fàtte te lépp lu ñuy def muy man ak yéen ñu ciy jiital bismillahi rahmaani rahim seen jataay xiira ñëwaat na xiira xam naa léegi tey du jaarati ñu koy bind xiira ñëwaat na xiira ñëwaat na beneen yoon tey mooy juróom-ñetteelu jataay bi weesu yéen ñëpp macha allah gis naa not yeeg ni ko doxale ba euh, ba bi bu mokk na léegi ak baabu nag bi xarfu ba daal mokk na kon tey dañuy toxu dem ci xaraf wu tudd ta araf gu tudd ta gis ngeen ko ñaari tomb la ci kaw araf yu weesu woon tomb bi fii la nekkoon tey nag ñaari tomb la ci kaw moo tudd xarfu ta xarfu ta ta kon dañuy bind tu tu tun gis nga ko tu tun lii fi ne maa ngi buñ ko àndee incha allah jóobul feeg 15 jours. wala quinze quinze lettres ñun ñëpp nu mën a liir parce que son bi rek moo changé bu fekkoon fii la dana bu bun mais tomb bi nekkul fii tey ci kaw la nekk ñu ne tuu tun ayca ñu ànd ko tuu tun léegi ñu daan ne tuu tii ki dañ koo tiire mooy beeba tey tuu tii acca tuu tii tuutun tuuti gis nga son yi xarfu ta ci la ñu nekk muy tuutun tuuti léegi ñu daal di indi benn baat bu xaw a gudd ne ko taa bu tun kii gisoon ngeen ko ci bind bi weesu mooy arfu ba ba tey ci ñaari araf laa nekk kon xarfu ta ginnaaw ba ma noppee ci xarfu ba ñu wax ko ñun ñëpp tuu tun buñ ko boole muy tuutun tuu tii buñ ko boole mooy tii taa buu tun buñ ko boole muy taa buu tun yéen ñëpp ku ci nekk na ko liir ci xelam macha allah liir ku ci xelam benn yoon liir ko ci xelam ñaari yoon liir ko ci xelam ñetti yoon ñu door àndaat daan ne tuu tun tuu tii taabutun tuutun ci arab mooy raisin tuutun mooy raisin bu leen neex ngeen bind ko en français tuutun mooy raisin bu arab ne tuuti mooy sama sama raisin nañ ma nañ bàyyi yaa gi bàyyi ko xel tuutun mooy mooy raisin tuuti mooy sama sama raisin taabuutun mooy kees kees maanaam kees gu ñuy def limon wala papaye wala nangam ak kees daal moo tudd taabuutun ci arab waaye fii dañoo bëgg duñ am benn lettre bu dul ba walla ta yéen a ngi may dañoo bëgg fii duñ am benn lettre bu dul ba wala ta lettre bi ñuy jóge mooy mooy lettre ba fii gis nga niñ ko fi defee bu tu tun tu tii taa bu tun ace ñu baamtu ko tu tun tu tii taa bu tun tuutun mooy raisin tuutii mooy sama raisin taa bu tun mooy kees bind yi di ñëw incha allah dañ seet kon ndax man ngeen wax sama kees ginnaaw tuuti mooy sama région taabuutun mooy kees léegi bind bii di ñëw danañ ci jéem a xam yéen bu ngeen bëgg a sama kees nu ngeen di def jërë ngeen jëf ci ànd beeg euh, Ali Imran TV ci xiira seen jotaay bi nga xam ne ci ngeen ñuy jéem a jànge ijëg boole waaye bis bu ñu mënee ijëg boole nag ci la ñuy yóg yëg nag jàng ci njàngay ca kawe waaye léegi daal dañoo bëgg yéen ñii seetaan ñëpp ba mooy nogoy ngeen mën a liir lettre arabe yi jàngeen jëf kon bonjour wala bonsoir mes élèves ba dars bi di ñëw allah muy dars numéro 9 shukran Quand on est une jeune maman, on n'est pas toujours sûr de ses gestes. Choisir les meilleurs soins pour son bébé est parfois difficile. Moi, j'ai demandé conseil à une puéricultrice. Elle m'a recommandé BabyMed. Des soins hypoallergéniques adaptés à la peau fragile et sensible de mon bébé. Une gamme complète pour que chaque toilette soit un moment de tendresse qui participe à son bien-être. BabyMed, son premier soin expert.